thank you parti démocratique sénégalais si Touba ay ndawam yi bokk si MLK di mouvement karimis ñoom de nee na nu pare nañu lépp luy élection rawat na bi nga xamante ne ñoo ngi koy séentu di local yi jàpp nañu ni fan newoon ba léegi ñoo ngi fa si wàllub majorité ndaxte PDS fii si département bi dooleem kenn du ko na table ginnaaw sax bi nu jàppee nii am na ay communes yu leen échappé woon waaye nag Mourtala Diop mi coordonnateur bu MLK nee na karimis yi ñoom fu nu nekk bi yeboo xel ndaxte jatu nañu euh, comme ni ma ko waxee rek nous sommes toujours optimistes le parti démocratique sénégalais reste majoritaire dans le département de Mbacké te li ma la wax euh, firnde gi yàggatul je pense que su ma juumul ci 2020 bi ci la ñuy dem élection locale incha allah taxawaay bi ñu amoon taxawaay bu raw lañ koy am fépp foo xam ne ñàkk nañ ko xam nañ ko te taxawaay biñ ci war a taxaw pour gagner ko xam nañ ko te incha allahu dinañ taxaw mais ci biir parti démocratique sénégalais dafa am phénomène bu juddu bu bees muy les karimistes karimistes yi ils sont un peu partout au euh, au maanaam ci biir Sénégal rawatina fii ci Mbacké département de Mbacké li fi nekk ci karimistes rek kenn xamul nu mu toll te tey karimistes yooyu ñoom ñooy jël relève bi te tey incha allah balaa ngeen a xam ne am nañu mbooloo am nañu taxawaay ñu demaat élection commune boo xam ne parti démocratique sénégalais ñàkk na ko rek incha allah dinañ ko nanguwaat bu neexee yàlla. ginnaaw bi mu yëkkati kàddu di wax ci actualité rawatina Karim Wade digganteem ak président Macky Sall yu demoon sax ba déglu ci ay kàddu Cheikh Yérim Seck analyste politique boobu firndeeloo ni déggante mi ngi am si ñaari waay yooyu moom Mourtala wedd na ko ba set boole ko dal ci kaw Cheikh Yérim Seck. Cheikh Yérim Seck damay bañ a revenir ci un passé récent yoo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko am na ñoo xam ne du ñu donc ñun le parti démocratique sénégalais bu ñuy tontu. dañuy tontu koo xam ne référence la dañuy tontu koo xam ne suñu nawle la mais li ma ci mën a wax rek mooy wax jooju mu wax amul wax jooju mu wax amul président Karim Meïssa waat déggantewul ak Macky Sall tey déggantewul ak Macky Sall ëllëg soxlawu ko. dialogue national bi nga xamante ni pàcc yu bare ñoo ngi fa ñu gis ni PDS da ko wan ginnaaw jàpp na ni jotaay bu ni mel du jur dara loolu nag la PDS tele a comprendre moo tax du si jëf du si wax. waaw dialogue Euh, mënta am benn gàllankoor sur le parti démocrate sénégalais je pense que ni parti démocrate sénégalais parti la boo xam ne un parti organisé euh, que tey euh, avec des instances yoo xam ne ça fonctionne à merveille donc bu ñu demee ba gis ni li nga xam ne la Macky Sall waxoon au début wax ni nii la dialogue bi tëddee ñu dem ba ci biir gis ni lu ci bëri respecté wu ko ñun nu sommes un parti organisé comme ni ma ko waxee sànq du ñu dem ci loo xam ne ay caaxaan la. dialogue bi au vrai sens du terme du dialogue te balaa ngeen xam ne du dialogue ñu dem ba ci kanam amul lenn loo xam ne dafay tukke loo xam ne dina jariñ sénégalais yi te ñun parti démocrate sénégalais dañoo nekk parti boo xam ne lépp loo xam ne du jariñ sénégalais yi duñ ci dugg duñ ci taq MLK amaloon ndaje si Touba Ndindi seen mboolem membres yi seen sympathisants yëpp teewoon nanu doon waxtaanee actualité parti démocratique sénégalais ak lanu naal seen kanam